إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني mbokk yi comme niñ leen ko waxoon sànq ci bitti rek si saal bi kon dugg nañ ci biir ci yéen a ngi gis liggéey bi ñi nga xam ne noonu ci mbokk taalibe yi nekkee ba tey kon ñi ngi taxaw rek sëriñ Babel Thiam di kenn ci jëwriñ ñi nga xam ne ci comité organisation bi ci lañ nekk kon xam naa dañ jox sëñ Babel rek mu nuyoo rek xëy na ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi xel Touba Monde bi TV rek incha allah sëñ Babel ginnaaw bu ñu nuyoo baax ziar la mu mel ne kon ñoo ngi fi ci Busto Arsizio ci Malpensa Fiera ci wàccee bis xas bi nga xam ne euh, ay waxtu yu néew rek incha allah moo ci des ci nusin suñu borom mu melni cai ci waccay bi mu mel bi tu lu bari melni yem na wala bok lu bari yéen ngi ci ndax man nañ xam maam fan la liggey bi tollu ak euh, ci yene étape ngeen tollu fi nek ni Babel. bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba kon bok yi ñu ngi leen di wax alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu ñepp di siar ñepp di ndokkel ñepp itam ci sunu bis bi nga xamne tuba mu mel ni nag ginnaaw nuyoo bi ak siyaar yi xanaa li ci des rek mooy ngir bañ guddal dugg ci laaj bi leeral ci sunu kéemtalaayal kàttan waaw xam nga euh, wàccaay bi su xasida bi fii ci Italie ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd di ko taxawal ay phase yu bare bare la yoo xam ne euh, bu ci nekk buñ ca tolloo rek daanaka day junj bis bi ndax phase bu njëkk bi mooy bu bis bi jàllee rek daanaka bala ñoo génn ci weer wi ñu ko defee woon dañuy def benn daje xool datub déwén bi kañ lañ koy jàpp kon booy wax mën nga wax ne phase bu njëkk bi loolu la. beneen beneen bi ci des mooy waxtaan ci sunu biir ba seet itam fan lañ koy defee ndax xam nga boo xoolee ni am na dëkk yu bari yu ñu ko defee eh, te itam eh, loolu lu ñuy juboo lay doon ñu ñëpp waxtaan ci ba juboo ba déggoo ci nga xam ne loolu ci ci la topp. bu ñu juboo ci fañ koy defee donte dañ koy delloo fañ ko defee woon ci bu mujj bi itam loolu lu ñuy juboo lay doon ci njiital jëwriñ ji ak ak ñi mu àndal ñëpp bu loolu jàllee nag ñu daal di song nag li nga xam ne ni moom mooy sas yi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ko sas sa bopp ngir jëmi bés bi ak contribution yi nga xam ne day jóge ci mbokk taalibe yi di ñëw ci bis bi nga xam ne lépp ci tàmbali ba ci jeexital euh, taalibe Sëñ Tuubaa yi rek ñoo àndandoo di ko taxawal bu loolu jàllee nag ñuy def ay ngontu xasida xam nga ko ndax teew nga ci yu bare di ko waajalee bés bi loolu itam ci phase préparatoire yi la bokk euh, ngontu xasida yooyu ci la ñuy waxtaanee euh, mbooloo mi seenu doxin li mu laaj euh, fa ñu jëm li ñu weesu ak fi ñu toll ak it ci la ñuy dajale addiya yi mu jëm ci bés bi bu ñu demee ba nga xam ne bis weer rek a ci des loolu nag moom day daal di doon nag li nga xam ne ni moom mooy dëgg dëgg nag daanaka dugg ci bis bi mën naa ko wax ndax bis ni mu toll eh, wareesul mën a toog daanaka ba mu ne semaine ci des wala ñetti fan ngay door a jóg kon daanaka bu desee weer dañuy daal di jóg ñëw ci booru barab bi ñuy defee bisu xasida bi def fi ay réunion def fi ay tënk ba àgg ci sax def sopraloogo mooy jóge kenn ku nekk fa nga nekk ñu ñëw ci barab biñ koy defee yéeg dugg ci biir xool lu ci nekk luñ ci war a dolli luñ ci war a wàññi yu ñu defoon yoo xam ne jaratul def ak yoo xam ne war naa am mënta ñàkk ñu def ko. bu jàllee nag ba nga xam ne fii ñu toll tey nga xam ne daanaka mën na maa wax ni mooy ay waxtoo ci des loolu nag la muy laaj mooy maanaam installation yi ci ngeen euh, daanaka yem nii gis nii. allestimento salle bi ci lañ nekk ak accueil bi nga xamante ne nii euh, mbokk taalibe yi ñu ngi leen koy defal ñuy jóge ci barab yi di ñëw ndax tey ji ci suba rek am na ñoo xam ne ci bëccëg ñoom jóge nañu ñu bokk ci biir dëkk bi lañ waaye fañ jógee daanaka démb ñu départoon ñoom ndax ñu ngi ci sud ba egsi fi daanaka bi ñuy julli tàkkusaan ak ñi nga xam ne itam dañoo jóge nag ci réew yu wër Italie xam ne am nañu jóge France si nañ am na ñu jóge Espagne agsi nañ am na itam ku jóge Belgique mu ngi fi am na sax ku jóge Sénégal mu ngi fi moom it suba la ñëw ak nag délégation bu mag bi nga xam ne ci sëñ bi la ñuy ko te ñoom itam ci suba lañu ñu agsi muy sëñ Cheikh Baara ànd nag ñaari rakkam ñu ñëw ba ñu dalal leen ba noppi. bu ko defee ñun ñëpp nag àndandoo léegi ñëw taxaw ci saal bi xool li nga xamante ne aajo woon na ko ñu war koo def te xam ni tam day yéwénal liggéey bi day yéwénal bis bi daanaka ci lañ toll fi mu nekk nii. ak it nag waañ wa itam ña fa nekk war a toppatoo li nga xamante ne nii moom la ñuy mooy jëfandikukaay yi ñoom itam ña nga fa xam naa du ñàkk neen fa dem xool ñoom itam bu ngeen àggee gis ni ñi ni ñuy taxawoo bés bi ci wàllu bernde yi nga xam ne mënta ñàkk ci bis bi ndax bu nu sañoon képp koo xam ne ñëw nga fi lépp loo xamante ni aajowoo nga ko rek da nga fekk mu jàppandi ndax bëgguñu kenn bàyyi këram dikk fii ci nun ba pare di tumuraanke ci yenn fànn kon loolu itam bokk na ci liggéey bi Eh, ni ma la ko waxee léegi ci saal bi itam moom it gis nga ko tapis yi yi nga xamante ni yëpp war nañ ko soxla itam nga xamante ne nii daanaka ren ji dañoo jël ñetti saal ndax salle bu mag bii mooy bi nga xam ne fi la eh, manifestation bi amee dëgg-dëgg nga xam ne lépp fi lay daje waaye nag salle beneen bi ci des mooy bi nga xam ne moom la suñu soxna yi nga xam ne dañu dañoo nekk ñoom fii ñu sunu njaboot ñoom itam ñu yóbbu leen foofu muy seen saalu bopp boo xam ne lépp nga fa sonorisation ak écran boo xam ne électronique la lépp itam ñom dinañ ko teve téwé té te dina am lu dox ndig ak ñom ak it nak barab bi nga xamné mom lañu wutal jaay kat yi ren aussi ndax bu taw itam ñu baña am ay jafeñ-jafeñ loolu itam bokku na ci liggéey bi ba mbokk talibé ña dem di sét kenn ku nekk bo diké la cey sa ak ñu jox lako nga man faa nekk timit dakk sa wërsëg kon dal ci gattal fim nekk ni phase bobu lañ tollu ngar dal phase préparatoire bo xamné mom moy dernier virage bi nga xamné ci lañ tollu mom Euh, jërëjëf sëñ Babel kon mbokk yi ki ngeen déggu wax sànq rek mooy sëñ Babel Thiam euh, nekk ci coté organisation waaye tamit nekk tamit ci côté finance mi ba tey kon sëñ Babel ñooy sant baax di la gërëm rek xam naa incha allah du ñaa xëy na fii ak suba rek xam naa ñu dajewaat xëy na ci yeneen laaj incha allah yu jëm ci wàllu bis bi kon sëñ Babel jërëjëf jërëjëf xam naa du ñàkk nag suñu kàddu gu mujj moom mooy santaat sëñ Touba bu baax a baax loolu moom moom lañ sax waroon jiital ndax euh, naka jekk Eh, moom sant gi moom dafa bokk ci bés bii ndax ñetti ñetti ñetti mbir rek ñoo waral bés bi ñetti mbir eh, jaamu yàlla eh, ñaan yàlla sant yàlla ñett yooyu moo daje ci bis bi wëlbatiku nag santaat sëñ Sidi Moxtaar bu baax a baax a baax te di ko ñaanal sunu borom dëgëral ko wéral ko bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ba yéeneem yi ci yoon wi yëpp mu yeggale ko ndax at mu jot rek ñu gis euh, loxom ci biir gis ñaanam ci biir gis jëfëm ci biir lool nak luñu wara wax la ba ñepp dégg ko kon dal ñoo sédé seede ñoo ñepp ne sant nañ ko cant go xam day dañ koy tuddu ni ngir diko ko gal rek waye deug deug deug sax mënuñu ko mënuñu matale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Babel jërëjëf yalla nañ dugg ci biir sant googu ci barkeb Seexul Xadim day kon mbokk yi xamna ne kon ñi ngi ci biir saal ba légui da xamna topal jotaay yi ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu liggéey bi ci wàccaay bi su xasde bi ci édition 2017 incha allah jërëjëf Serigne Babel. inni uxaadibu nasara fi ardim li maliki mursara inni uxaadibu nasara kon mbokk yi rek ba tey comme ñu jógee sànq sëñ Babel rek kon ba tey ñoo ngi toog rek suñu kilifa Baye Mbacke Mbodj moom it euh, sax moom mooy jëriñu secrétaire général bu bisu xasida Touba Italie kon Baye Mbacke gannaaw bu la nuyoo baax ziar la rek mu mel na kon ñoo ngi ci wàccaay bisu xasida yi incha allah niki suba lay doon kon ñoo ngi ci biir saa bi nii rek ñu gis ne mbokk yaa ngi ci biir liggéey bi ci côté Alcimenta Sall beeg yooyu gannaaw bu la nuyoo baax la euh, ci wàllu secrétaire xam naa yéen seen liggéey fan la toll jamono biñ toll nii xam na ay simili yu néew wala ay waxtu yu néew rek moo des ñu tàbb ci bis bi incha allah taala Baye Mbacké. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci ziar bi Cheikh Sidi Makhtar di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ba fi mu bëgg yóbbu liggéey Serigne Touba bi mu yóbbu ko fa ànd ko ak njaboot Serigne Touba gi yëpp. Euh, senyakadim khadim da nga laaj lo xamanteni ni nii mbacke euh secrétariat dafa nek lo xamanteni ni dafa am ñuñ ko séqal ndaxte du ben du ñaar secrétaire généraux yi ñing ko daan and ak ku ñu wax dam sek ñepp xam ko ci liggéeyal bi tay ji fu mu mënti nekk ci ca Sénégal xelam mi ngi ci liggéey bi ñu andon ko ak mom seigne dam ba ji jii mu nga ci Sénégal andon ko ak seigne dam ñang ci Verona ñu doon ñetti secrétaire généraux yo xam ni ñun ñëpp ci walu nasaran dañuy bind français and ko ak yenen secrétaire général ku démé ne seigne bacci ndjay moom itam mu doon bind ci walu arab bi nga xamante ne nii sëñ daam yàlla dogal na at yi yëpp ma nga ca Sénégal duñ ko mën a ñàkk a tudd ndaxte dafa nekk ci suñu xol ci la ñuy jëlee sëñ Mouhamed Ndiaye Touba Milano toftal ko ci ñun ñu xam ne xel liggéey Serigne Touba nag bu tubaab di tudd continuation booba Serigne Touba moo tax ñuy wax ndax liggéey Serigne bi day dox di wéy. ñun tamit biñ demee ba xam ne ñoo ngi jëm mag ci lañ jël xale yi daal di leen di toftal ci suñu wet di am lu bari ci liggéey bi tamit ñu koy yenn ko ci suñuy loos di ko teg ci seeni i mbagg ñu mën a wéyal liggéey bi ñu xam ne liggéey bi tamit noonu rek la mën a demee kon li ëpp ci liggéey bi tey sëñ Amène njaay moo ko yore wante nag teewul ñun saa su ne ñu ngi ci wetam di xam di ko teg ci yoon woo xamante ne nii bis bu dikkee lépp ci loxoom day woyof toy ci moom kon loolu tamit muy ab jàngale boo xamante ne nii liggéeyu kuréel yi noonu lay doxee kenn ku nekk ci ñun ñi nga xam ne nii ñi ngi jëm mag ñi ngi tàggat ay gone ci seen wet ñu leen gën a néewi at ngir bu ëllëgee ñun suñu teewaay kese la ñuy soxla moo waral tey jii maanaam suba mooy bisub xasida bi kuréel yi ci àddina sépp ñëpp a ngi koy waajal rawatina Italie ak Europe bi wante ñun suñ ngor mayuñu ñuy toog ba suba ñuy ñëw kon bu ñu mënatul lal lal ay tapis mënatuñoo yëkkati baas tamit wala rangalay gees day jaadu ci ñëw fanaan si fekk liggéey bi toog tout tànk yi di ñu gis ñu xam ne ñun ñoo ngi ci seen biir kon loolu moo waral suñu fanaan si tey ci ajjuma gi te ñu ngi ko séqal ñëpp ku demee ne sëñ Sam mi nga xam ne nii mooy jëwriñu liggéey bi ak ñun ñi féete mag ñëpp ñu ëpp ci ñun dana ñëw fanaan si ndax bu gan ñi de jóge ci bitim réew di fanaan si kon ñun ñi ñun ñi ñuy fekk si tamit te ñu war leen a dalal loolu rek buñ ci xoolee dañoo war a ñëw fanaan si kon loolu bokk na ci wàccaayu bisub suba bi incha allah te ki nga xam ne nii mooy Cheikh Sidi Mokhtar seen Cheikh Baara mi nga xam ne nii yabal na ko ñëw na kon loolu tamit dafay nekk loo xam ne nii ñun ñi jóge ci biti bu ñu ñëwee dañu fee war a fekk ñun ñoo leen war a teeru ñoo leen war a gunge bam lépp sotti rek ñu doogo a bittër ñu ko waat delluwaat ci makkaan yi kon euh, sëñ Mbàkke foofu daal lañ tolloogun ci liggéey bi te xam ne moom liggéey bi moom am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax liñ daan doxal lépp ba tey ñu teg ko ci loxo yi tuut tànk yi tuut tànk yi ñu ngi koy doxalee ci anam boo xam ne nii moo gën a moxtaare ni nga xam ne nii ñun moom lañ doon def jërëjëf euh, Baye Mbacke kon mbokk yi rek mu mel ne kon ki ngeen déggoon sànq muy àddu rek mooy Baye Mbacke mbooj nekk Touba Toscana comme ni mu ko waxee rek wax dëgg yàlla muy jëwriñ ci biir liggéey bi waaye muy suñ kilifa ci biir liggéey bi wax dëgg yàlla ku xam Toscana ni nga xam noonu la xaw a soree fii ci Milan wax dëgg yàlla mu ñëw ci liggéey bi ngir di gunge ni mu ko waxee rek njaboot gi ngir gën leen dooleel ak gën leen la ñemeel kon xam naa Baye Mbacke rek danay sant baax gërëm la xam naa kon ñuy xaara ni kon sëñ Amène Ndiaye mi nga xam ne moo topp ci yow nga xam ni nga ko waxee lu ëpp ci liggéeyu côté secrétaire ci loxoom la nekk incha allah bu ñëwee xam naa yéen ci des kon moom dina ko mën a gën a leeral incha allah taala kon Baye Mbacke xam naa kon sa kàddu yu mujj rek incha allah taala kon boo la ñu jàll si yéen boo xam ñoom na ci biir liggéey bi suñu kàddu yu mujj de xanaa delluwaat di ñaanal bokki taalibe yi di ñaanal Cheikh Sidi Makhtar ci liggéey bi nga xamante ne nii teg na ko ci suñu loxo ci fas yéene koo ak moom di ñaanal tout tànk yi tamit ñu xam ne liggéey bu sell ngi liggéeyu lislaam a ngi liggéey boo xamante ne nii dara génn ci sëriñ bi niñ ko tàmbali woon 2004 ba nëgëni tàmbalee ci sëriñ Touba yem ci sëriñ Touba noonu rek lañ fas yéene wii te liggéeyal sëriñ Touba tàmbale ga ma ngi jiitu ci alxuraan ak xasida ak sikurula ak salaatu ala nabi kon loolu ñun loolu la ñuy dund di ci xiirtal tuut tànk yi tamit te tuut tànk yi gis nañ ne lii nu nekk ba tey mu ñëw ci seeni loxo ñooñu ko gën a bëgg kon ñun dañ ciy sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na liggéey yëpp woyof te ñu tasi see ngërëmu Serigne Touba te ci woo ñëpp nag te xam ne liggéey bi daal liggéeyu taalibe liggéeyu lislaam la ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ne nii daal da nga naan ashadu an laa ilaha illallah muhammadu rasulullah rawatina di taalibib Serigne Touba ak daayira boo nekk ak foo fi nekk ci ci kaw suuf rek ñi ngi lay woo di ci woo ñëpp xam ne liggéey bi daal dafa jaar ci suñuy loxo rek wante ñun moomuñu ko Serigne Touba ko moom. kon liggéey Serigne Touba la ñi ngi ciy woo ñëpp rek comme noonu ñu ko waxee bëgg nag ñëpp xam ne ñun ñëpp li tubaab di wax ñun ñëpp ñoo ci yem même point d'égalité xam ne Serigne Touba rek la ñuy dàkk te di ko fas yéene koo dàkk ci xasidaam yi nga xam ne nii ci mbindam. kon képp koo xam ne nii yaakaar na mbindum Serigne Touba rek ñi ngi la ciy woo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu euh, jërëjëf li nga wax day tekki li Serigne Touba wax ne rek xasida ci faaxar xasaayid kiram wali taquud abadan xayra maram kon yàlla nañu ci tàbbi rek ci barke xasida yi barke borom Touba jërëjëf Baye Mbacke Mbow jërëjëf inew xaadimu nasaratura في أرضهم لمالك مرتضى إني أخادم النصارى في أرهم لمالك مصرى kon ba tey rek mbokk yi nga xam ne ne bàyyi xel seen télévision Touba Monde bi TV lëkkaloo ak rajo Xassida online Touba Monde bi euh, comme bi jógee si Baye mbakki mbooj mi nga xam ne rek mooy moo jiite côté secrétariat kon ñoo ngi toog ba tey ak sunu wetu ndeyjoor Euh, sëriñ Modou Mbeng moom mi nga xam ne mi ngi nekk Tuubaa Wareesa ci Milano ci dëkk bi nga xam ne fi la ne amalee bisu xasida édition 2017 biñ nekk nii nga xam ne ñu ngi ci biir salle bi ci biir Fera bu Milan. kon Baye Modou ginnaaw bu nuyoo rek ziar la bu baax a baax di leen masawu coono yi nga xam ne euh, depuis lundi ba léegi yéen a ngi ci mu nga xam ne yow sax yaa yore wàllu ngan yi nga xam ne ñooy jógee ci àddina bi yëpp di teew si ci bis bi nii nga xam ne yow yaa yore coordination wàllu woo la ko mbokk yi féetalee. Euh, ginaaw bu la nuyo rek niñ lay laaj ak Baye Modou moy gan yi nga xamne ñi ngi ñew di jóge ci aduna sepp nak mën nañ ko waxe non sax yaakar na ndax bis bu mom ku ne xam na ne da fay melni señ taw waxe won rek ne ya la bari ya ahla bari o jeli bari bari saxaay day mel da fay tekki ku ci bis bi nga xamne mom lañ nek ni euh ndax mën nañoo xam gan yi boobaak legi seenu way fan lañ tollu ak ñen ñu ak ak naka ngeen ko coordiner ba manam walu accueillir bi mana a mana murté murte ni nga xam non la murte ni Baye Modou auzu billahi min satan bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon suñ Mbàkke comme noonu nga ko waxee rek euh, suñu wàllu wàllu wàllu gan ñi moom ni ñu ko doxalee man ak sama mbokki taal yi ma ngi seqal sëñ Fallou Mbaye suñu jëwriñ ak sëñ Souley Gueye dëgg-dëgg ñoo ngi ci liggéey boo xam ne nii ñu ngi ciy dox wàllu mucc ay bi ak rafet ak xale yi àndal ndax gan ñi jóge ci gox bu nekk di ñëw rek àdduna si sépp rek ku ci nekk rek ñi ngi woo sëñ Amet Ndiaye wax ko sëñ Amet balance ñu programme bi ci la ñuy basé wu mën a liggéey ñu préparé ay ay oto neuf places yoo xamante ni ñooy dem ci aéroport yi ak oto yoo xamante neuf places yoo ni ñoom ñooy dem ci gaar yi ak ay particulier yoo xamante ne bii ne yëpp ñu ngi loolu yëpp la moo ko waral liggéeyal sëñ Touba rek liggéeyal sëñ Touba commence seen Touba lañ ci yam sëñ Touba comme ni ko sëñ Mbacke waxee léegi rek loolu nag moom euh, ñoo ngi ci ñoo ngi ci sant yàlla ndax liggéey fi mu nekk nii bu ngeen gisee programme bi ma tiim nii moo waral bu ngeen gisee programme bi ma tiim nii moo moom moo ñuy wan vol bu nekk ak ña ñëw ak ñaata personnes ñoo ci nekk nun toll ñu xam kan fay yabal nga xam te ni bu heure bi jotee rek ka war a dem foofu xam na ko day dem rek jëli su ñëwee ñu yiir ko euh, dalal ko ndax ñun ñooy nekk fii ci cerveau bi man ak sama mbokk taalibe sama mbokk yi ma ko seqal sëñ Fallou Mbaye sëñ Souley Gueye ñu nekk fii su ko defee bu ñu agsee rek ñu dalal leen euh, wax leen fi nan war a féetewoo macha ba ay Angleterre Norvège Espagne partout ci Europe yëpp France yëpp rek monde bi yëpp rek ñu ngi ñëw même sax am nañu jóge Sénégal ndax sama tane am ñoo xamni Sénégal man teeru ji na leen ñom la ñoom ñëpp euh liggéey bisub señtu wa bi rek mo leen ko walal 13e euh, édition mi nga xam ñu nga di Malpenséfera di ci sant rek bu wër nak mom té nak di ñaan señtu di wax waxtaan mu yagg fi loolu te wér ndax li yëpp nak mo ñu jox ndigal ba tax ñu mëna def li sant bu wér a nak mom waaw seen sëñ Mbacke yéen tamit seen liggéey rafet na taxawaay bi rafet na gis nañ ko loolu ak mbokku taal bi bi ceew yëpp rek waaw. Euh, jërëjëf Baye Modou ndax mën nañ xam yan délégation ñoo seegun fi ñu wax ak nii nga xam ne suba mooy bis bi te ne si guddi gi nii di waaje bisu ndax man nañ xam yan délégation ñoo ñoo ñëwagun ak ñoo ñëw tamit yan dëkk lañ jógee ñan lañ. fi nekk nii délégation yi ñëwagun am na ñoo xam te ñu jógee France ce matin ñu ngi ñëw 8h20 ñoo jël na leen ba dalal leen am na délégation bu jógee Espagne ñëw na ci suba 12h40 euh, dalal nan ko am na délégation boo xamante ni bii ne euh, Norvège la mi ngi war a agsi léegi à 21h ñooñ dinañ dem dinañ dem jëli leen léegi. am na délégation boo xamante ni ñi ngi jógee Sicile ñoom it agsi nan dalal nan leen am na délégation bu jógee Canada ñooñu agsi ñoom tamit agsi nan dalal nan leen délégation yu jógee yeneen jës yëpp nag ñi suba la ñuy ñëw euh, ci suba gi ak ñoo xam ne ci guddi gi léegi incha allah rabi waaw. waaw noonu daal la demee fi mu nekk nii. Euh, jërëjëf euh, Baye Modou comme ni nga ko leeral ci sa tàmbali wax rek ci matukaay yi nga xam ne jël ngeen ko euh, muy ay oto yoo xam ne dangeen ngeen koo jël yenn yi xëy nekk comme ni nga ko wax ay neuf places yenn nekk ay particulier ngir lu gën a rek yombal jëli mbokk taal bi nga xam ñëw ci bis bi. xam naa kon ñuy laaj rek ba xam coordination bi naka ngeen ko tëree ndax ku xool ñi nga fi wax sànq mel na ne aéroport yi ñuy wàcc mel na ne doonul benn aéroport. mel na ne Milan Malpensa ngi ci lu mel ne Linate ak lu mel ne Orio bu Bergamo xëy na ak lu mel ne yeneen gaar yi nga xam ne ñu ngi ci zone Lombardia bi loolu tamit nag ngeen ko saytoo Baye Modou. coordination moom sëñ sëñ Tuubaa rek moo nu ko yombalal ndaxte mënoon naa gën a jafe waaye ndax yàlla daf ñu booleeg ay xale yoo am Pastef yoo xamante ni koo ñu jógal léegi mu jóg ñu def ci ay réunion tënk ci balaa bas bi créé benn group WhatsApp boo xamante ne bi ñi am disponibilité ñëpp. ak ñi am volonté ñëpp wax ni mën nañ taxawee ni sàngam su ko defee ñu yëlloolu crocheté ko boole ko ak suñu liggéey bi nga xam te ne bis baa rek dara dara du ci jafe ndax sëñ Tuubaa yombalal nu lépp coordination bi nag noonu leen ko doxalee ak sëñ Amane Ndiaye tamit jàpp ci lool ndax ñi nekk extérieur tamit ñu bari moom la ñuy woo wax wax ak moom bu ñu waxee moom amet balancé ma waat ko ñu imprimer ko def ko ay këyit yu bari chauffeur bu nekk ñu jox ko fa nga war a dem nga xam bu heure bi rek jarul xaar kenn dellu bi rek allah rabi noonu leen koy demee waat si kanam tuuti dinaa yor feuille euh, départ yi nga xam te ne bii ne boobaa dañuy dem tranquillement ak neuf places yi ñu luyee neuf places yi du benn du ñaar xaw naa xaw naa xaw naa takku ak ay particulier ak ay xale yoo xam ne chauffeur yoo xam ne bii ne bu ñuy sonnee ñiy relevé dana bañ ba jël ay stand euh, barabu dalu dalluwaay yoo xamante ne bii ne bu ñuy dawalee ba sonn dem tëdd ca biir noppaliku ñu ni leen seen i xewlu ñu xewlu ba seen heure jot ñeneen ñi jógaat ñeneen ko yoo xam ne bii ñëpp dinañ liggéey te coono ban ciy ragal ak risque biñ ciy ragal du ci am ndaxte buñ sonnee daw 24 heures fajar gi bu ñu delloo oto yi wala bu ñu defaa yóbbaat nit ñi mën naa indi gàllankoor mais su yàlla defee ñuy def ñuy def reposer ak relève boobu yàlla mën nañ sàng sutura ba lépp luñ ciy ragal du ci am ak ndimbalu sëñ bi daal noonu la noonu la demee moom waaw. Euh, jërëjëf Baye Modou xam naa kon sa kàddu yu mujj rek euh, ndax xam naa ne mel na ne temps bi bëriwul te yéen ay yitte ndax ba te gan yi ñu ngi ñu ngi di ñëw te comme yaa nekk ci bopp liggéey boobu xam naa sa kàddu yu mujj rek incha allah waaw jërëjëf sëñ Mbacke kàddu yi moom rek mooy ni ko sëñ Mbacke mi waxee rek commencé sëñ Touba yam yi sëñ Touba te nag sant yàlla bi nga xamante ni sëñ Touba namu na noo liggéeyloo ndax am na ñoo xam ne bëgg nañu bokk ci liggéey waaye mënuñu ko am danañ fas yéene ñëw waaye ba nan demee ba ñëw dana am lën gàllankoor kon dañuy sant sëñ Touba rek di ñaan sëñ si daxma daar mu yàgg fi loolu te wér ñaanal bokk taalibe yëpp nag ñu yàgg fi lool nag moom te yàgg koo taxawee lii gën a rafet musul ñuy seedaa nekk cat waaw musul ñuy seedaa nekk ci barke salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel Touba Monde bi TV lëkkaloo ak rajo Xassida online kon ki ngeen doon dégg sànq mi àdd rek mooy Serigne Modou Mbeng nekk ci wàllu accueillir gan yi nga xam ne ñoom ñoo jóge si addina bi yëpp ak sëñ Mbacke Mbodj mi nga xam ne moomit it euh, moo jiite côté secrétaire général bu Touba bisu xasi Touba Italie ci fii Touba Italie kon ñu leen joxaare xam naa dig ndaje incha allah ci kanam. ak yeneen mbokk taal bi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu liggéey bi si seen télévision Touba Monde TV lëkkaloo ak rajo Xis online Touba Monde bi iniw xaadimu nasara tura fi arnim li maliki mursara iniw xaadimu nasara tura